waa APR ay yàlla mi ngi ñoom de dañoo montage seen vue montage vue quatre-vingt-deux millions et poussière xool leen ba baax xool leen am na la leen juumloo seen montage bi te ngeen fàtte logo RTS bi logo RTS bi dañ ko fàtte teg na benn photo bañ créé si diggante bi bind ñu créé logo bi teg mujj jéem ñoo démentir am na benn photo boobu gis nga ay créé photo logo bi ñu teg ko te logo ma ne logo tegu si suuf étoile bi wooyu luppi si booru bi laa loolu si dara bii laa sonn a sonn ah. ndax yaakaar naa ne bu mitin amee wala leneen am du ñu xaar sax ku leen jox paas du ñu xaar sax ku leen jox lekk du ñu naan dañuy xëy yenn fa suba ba ngoon te du lekk du ñu naan. wala lu ñuy lekk ci mbedd yi lañ koy jëndantoo du ko lekk kon damaa bëgg tey gars yi ngeen bàyyi xel le 6 incha allah bàyyi leen xel na 6 incha allah solution baa ngi nii solution bi mu ngi nii mooy Seydina Ousmane Sonko mu sell mu baax mu yiw mu gën ni ki nga xamante ne du lekk riba ki nga xamante ne lekkul alalu jërëm lekkul alalu baayoo ki nga xamante ne dafa juba juba jub ba naa Ousmane Sonko boo koy wax da ngay jub ñi dëngoon ñëpp bu ñu jëlee seen làmmiñ bi ci dëkkal Seydina Ousmane Sonko mu sell mi dañoo jub Seydina Ousmane Sonko keroog bi ngeen ko noppee taxal ci la yàlla jox bépp tur bu sell ñu ne Seydina Ousmane Sonko mu koy dégg seen i xol di bon mosoo leen a dégg bu ñuy wax mu sell mi Seydina Ousmane Sonko di nit ku baax di nit ku yiw di nit ku dëgg Seydina Ousmane Sonko di nit koo xamante ne dafa jub bay jubalaate Seydina Ousmane Sonko dafa yiw bay yiwalaate Seydina Ousmane Sonko dafa baax bay baaxalaate Seydina Ousmane Sonko dafa neex ci xol patriote yi patriote yi booy tudd Seydina Ousmane Sonko sa xol bi day mel ni dañoo jël neige waxuma la glace sax mais dafa dépassé glace dañuy jël ay neige chargé la ko sa biir xol ndax sedd gi muy sedd man fi ne li ma koy tudd nii sama xol baa ngi mel ni walagu mbott sama xol baa ngi mel ni frigo sama xol baa ngi mel ni congélateur pro je t'aime projet te ma bëgg papier yi nga xamante ne ñoo may seetaan bu ñu kontaanee comme man ni may kontaanee ci Ousmane Sonko ñu may ma ay kër bëgg patriote yi may ma ay cœur bu ñu kontaanee kon man ni ma kontaanee ci pro bu fekkee li ma yëg ci pro ñu ngi koy yëg nañ ma may ay kër yaakaar naa ni 150 personne ñoo fi nekk may leen ma ay cœur bu fekkee li may sentir ci pro yéen a koy sentir ci pro j'aime yi merci beaucoup mais damaa soxla ay kër damaa soxla ay cœur pour président Ousmane Sonko mu sell mi. damaa soxla ay kër merci beaucoup merci beaucoup dama soxla ay cœur pour président Ousmane Sonko mu sell mi patriote yi fan ngeen nekk na cœur yi daanu na cœur yi daanu merci beaucoup na cœur yi daanu dama soxla ay cœur ci Seydina Ousmane Sonko mu sell mi parce que tey yaakaar naa ne li ko waykat bi di wax rek solution baa ngi nii mënatuñoo am solution bu mel ni kii kon nag ngalawaay bu ñu ko foyee ngalawaay nañu ko téye ngalawaay nañu ko gérer lépp lu ñu fi waay wax lépp lu fi waay wax pro waxit la lépp lu ñu fi teg ci métit Euh, tegit la suñ naa Ousmane Sonko mii du dund tey ci métti loo xamante ne Serigne Touba dund ko woon Serigne Touba sept ans sept mois la def ci àll bi ndax dëgg set ans sept mois la def ci àll bi ndax dëgg tey ñi nga xamante ne tey ñoo ko doon teg loolu tey seeni sët ñooy raamal Ahmadou Bamba sëy naa ñu ñëw ci Ahmadou Bamba mu baax baax bu doy ni keroog ba mu ñëwee mun ne ñëpp baal naa leen mais ba mu ñëwee li ci gën a yéeme neewul sant leen ma de dane man Ahmadou Bamba waa képp ku ma bëgg na ñëw santale ma suñu borom mais yàllaa mun a fay mais yàlla moo mën a fay mais xool leen yàlla li nga xamante ne moom la fay Serigne Touba xool leen yàlla li nga xamante ne tey moom la fayee Ahmadul Xadim xool leen yàlla li mu fayee Seexul Xadim kon tey damaa bëgg tey ñu war a xam ni tey Sénégal ma yàgg na fi te tey tubaab yooyu fi newoon ba tey ñoo ngi fi kon tey Seydina Ousmane Sonko bu luy ñëwee ci moom muy gox di garmi di gararar Seydina Ousmane Sonko du nit ki nga xamante ne deretu gox la yor. Seydina Ousmane Sonko du nit ki nga xamante ne doxul ci daray jaam Seydina Ousmane Sonko dama lay wax ne chaque jour damay wax sa yaay merci beaucoup parce que daf laa yar yar bu baax daf laa yar yar bu jub suñu borom ñëw teg ci loxo Seydina Ousmane Sonko suñu borom yàlla na jël loxoom bu sell bu màgg boobu mu teg ko ci sa kaw te teg na ko sax ci sa kaw parce que yaakaar naa ni loolu moo tax nga nekk fi ak ñun ba heure bii Seydina Ousmane Sonko tey boo doon beneen nit tey kenn waxatu ko. tey yaakaar naa ni tey ñu patriote yi dañoo war a sant yàlla sant yàlla bu baax la ñu war a def julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nga xool bi sama waati wal ardi li nga xamante ne moom lañuy defal teewal ñu pro tàggatal ñu ko ñëw delloo si ko suñuy loxo merci beaucoup Diop merci beaucoup franchement ñëw delloo ko tegal ñu ko ci suñuy loxo kon ñun yaakaar naa ni li ñu war a def rek mooy bëgg pro tey ñaan yàlla yàlla àndal ñu at pro ba 2024 pro dugg ci biir palais bi Sénégal changé ñun Sénégal am nañ lépp lépp luy baax baax wala lépp luy jub rek am nañ ko mais ay njiit yu bon kase moo ñu sonal ay njiit yu bon kase kase kase kase kase moo ñu déranger. te tey comme ni ko naa Seydina Ousmane Sonko di waxee à chaque fois dafay gërëm jeunesse bi Seydina Ousmane baax rek di gërëm jeunesse mais jeunesse bi ñoo la amee njukkal mais pro nga nekk ko baax teel a comprendre jeunesse bi. nga xool nga xamante ne jeunesse bi yàgg na nañoo bëgg lu baax mais amuñu ko leen dimbali Seydina Ousmane Sonko nga ñëw joxe sa lépp ndax ñun nga joxe sa lépp sa lépp nga ne bëgguma dara. man faalewu ma sama soxna faalewu ma samay famille man li ma faale mooy na Sénégal baax Seydina Ousmane ko li ma leer ba leer mooy say famille woo nañ la ne la génnal ci combat bi nga nekk te un jour yaa ngi koy wax nga ne sa yaay mu ngi lay woo di la expliquer genre affaire yooyu noonu mais dara nga ne jeunesse bi rek mais dara nga ne Sénégal day baax rek mais dara nga ne dëkk bi dañ koy teg ci yoon mais dara nga ne képp ku fi lekk ay milliards da koy génne tam milliards yooyu ngay wax am na de gars dañuy dóor ba dóoral seeni famille tey yéen boo leen taxawee ñooñu di leen wax daan leen kii nitu ay la kii nitu fitna la barki leeru alxuraan daa leen tegal dañ leen wax gëmuñu ko ñoom li ñu yor la ñuy lewal yow na nga nekk fi ñu torox yow sombi sax boo koy naan du am suukar wala du am meew xorom sax sombi bi du ko am tey am ñoo xamante ne ñu ngi seeni milliards xamuñu sax lu saaku ceeb di jàpp parce que dañuy dem dóor ko xamuñu courant xamuñu xamuñu xamuñu ndox duñ ko fay tey ñuy ñëw di la gëmloo ay n'importe quoi yore seeni 4 x yow nga topp ci 4x4 bi di daw di fayi fayi di farara ni ñooñu yéenew ñu la jàmm ñoo ñooñu bu ñu sañoon dangay ngay torox ñoom ñuy am mais Seydina Ousmane Sonko dafa ñëw ne man li ma soxla mooy ne ñëpp amandoo bu kenn soxlaal kenn Seydina Ousmane Sonko moo ñu woo ci bu kenn soxlaal kenn la ñu woo bu kenn soxlaal kenn kenn kenn kenn kenn kenn ku ci nekk nañ liggéey di jariñ sa bopp ñu teel a comprendre loolu mais li ma waxoon sànq lu wax bi bari bari bari lu débat bi neex neex neex tey ma xamante ne damay wax mbaax mbaaxu Seydina Ousmane Sonko mu sell mi di wax ci pro lii ma koy wax muy dëgg boo xamante ne amul kenn ki nga xamante ne war nga ko mën a dindi bu ñu fàtte ni le 16 la lycée di tijji le 6 incha allah bu ñu fàtte ni le 6 le 6 bi bu ko kenn fàtte le 6 bi damaa bëgg préfecture moo gis wala foo gis fi nga xamante ne dañ fay dundoo mu fees dell ak ay karaw na fees dell ak ay karaw yu ñuul le 6 incha allah jour ji mooy jour J moins 3 gars yi bàyyi leen si xel jour J moins 3 nañ leen si bàyyi xel bu baax a baax a baax gars yi li ñu doon xeex xeex nañ ko. gaa yi li ñu doon ñafante ñafal ne ko ñafante nañ ko gars yi li doon ñafal ñafal ñafal ñafal nañ ko. gaa yi li ñu doon ñafal ñafal nañ ko gars yi li doon def def nañ ko. gaa yi bi ñu waree wàcc ci terrain bi wàcc nañ ci terrain bi def nañ lu ñuy def. mais olof day ne kuy tëru kuy teggee ci gën ñi nga xamante ne nag dañoo toog du ñu tëru ngir bëggaat beneen cas nañu teggi parce que yaakaar naa ni neuf mois yàggul yaakaar naa ni dix mois yàggul neuf mois yàggul nañu nekk ci li nga xamante ne ci lañ war a nekk buñ nee ñu ay tàppet lañ nañu leen bàyyit yàlla suñ nee ñu dañoo ruux nañu leen bàyyit yàlla waaye ñun ku ñu gis xam ne du ñuy ruux ñun ñun dëkk bi li ñu fi war a def yëpp dañ ko fee def liñ fi war a jëf yëpp dañ ko fee jëf li ci des nag mooy ñu accompagner pro ànd ak moom ba 2024 te incha allah ci loolu lañ nekk dafa am loo xamante ne yéen day dagg seen xol te da ngeen koy dégg ñun patriotes yi kenn mënu ñoo tere panel yi ñun patriotes yi ak loolu leen ñu menacé menacé menacé mënu ñoo tere panel yi ñun patriotes yi ak loolu leen ñu menacé menacé menacé mënoo ree def ay live loo leen ñu leen ñoo taxee ñu nekk si li nga xamante ne moom lañ war a nekk ñun yàlla rek lañ ragal te gisuñu ko ragaluñu ñu nekk bi nga xamante ne da ngay dox kon da ngeen war a arrêté menace yi ngeen war a arrêté ñëw dugg fii naan da ngeen ñëw fii di jàpp nit yi di leen nangam ak nangam di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen wax ay yu kenn xamul arrêté leen yooyu asu merci beaucoup ma sœur arrêté leen yooyu arrêté leen bases yooyu ñun ay jigéen lañ mais ay jàmbaaru fëkk tëkk lañ du ñu ay ragal ku ñu dégg sax ñuy wax nga xam ne duñu ay ragal jegew ñu sax ay ragal dee benn la te yàlla dee la njëkk a bind te yàlla képp ku ne da dugg kaso da dugg kaso ah. loolu amul benn problème mais li licenciaire bi mooy man li ma leer ba leer man sama dugg kaso kenn du ne dafa sàcc ndax faalewu ma ndayi sàcc man yàlla teral na ma comme ni mu teralee tout le monde du ne ma day jaay drogue lu jëntuwu ma ko du ne la day jaay volet du ne day jaay yàmbaa c'est ça le problème mais lan la duggee kaso gën a pro loolu ngeen di menacé nit ñi waaye seen i menace ngeen baal ma sax dama wóor yéen ak may saagaloo arrêté leen seen i menace ñun faalewuñu yooyu ragaluñu yooyu ñun toujours avec pro ba 2024 te liñ leen di wax boobu ba tey ñu ngi leen ko wax gëm ngeen ko de mais da ngeen tos